dañ fi ñëwoon tey si mboolo biraan euh, mairie bi ak euh, association bu ñu tudd wàllu diiwaan ñu ñëw def fi reboisement euh, am fi ñëwee nag dëgg yàlla lañu fi fekk dafa dafa dafa daw yaram parce que fekk nañ fi ay ndaw fekk nañ fi ay mag fekk nañ fi tamit suñu xale yi samay xale yi xëyu ndaw yi yi xam ne dara mun leen téye fu ñu leen woo ñu ñu ñu wàcc si terrain bi donc dinañ dem jëmbati ay garab waaye lu ëpp solo mooy mboolo Birane commune bi dafa am 32 500 habitants en moyenne à peu près ku nekk bu toppatoon juróomi garab rek ci at bi dinañu am cent soixante mille garab cent soixante mille garab yooyu boo ko tasaaree ci commune bi daanaka kilomètre carré bu nekk da ngay am euh, ñaari téeméeri garab loolu toll su fekk commune bi si bopp mën nañ ko def taw bi donc euh, ñun jël nañu engagement def fi pépinière bi nga xam ne dinañu am cent cinquante mille ba cent quatre vingt mille production ci année bi comme ça année ñëpp ñu mën a jëkkatu boobu donc ku nekk ci population bi juróomi garab rek nga jëmbat ko ci at bi yëpp ñu may la at Laju la lul jëmbati juroomi gram ba topato ko mu doon sa biir kër mu doon ci mbedd bi mu doon ci sa biir tool mu doon feneen fi nga xamne moy sa choix préféré yaakaar na dina mëna mot donc euh, euh, challenge bobu lañu lancer wa wa mbolo bi Birane a commencer par le maire a commencer par les autorités administratives a commencer par le conseil municipal ci population bi ku nek imam chef de village ku nek ngeen ci euh walu walu diwan ngeen ñew japp ci xëyu ndaw yi ngeen ñew japp ci école bi ak ñen ñep ñu ñew japp ci ku nek nga jëmbat juróomi garab ci année bi di ñëw buñ ko défé rek euh, mbooloo Birane dina doon euh, commune boo xam ne dañ ko bees le défi euh, moy dañ ko def bu féké né garab yi ñuy yi ñuy jëmbati tey bu féké né 90% dund nañu ba ba ba année prochaine bi ni li ma leen joxon ci ay garab dama koy dugg benn deuxièmement ma def ci pépinière pépinière bu 150 cinquante mille ba cent quatre production troisièmement tamit ñu ñëw engagé agence bi dama koy tëj pendant une semaine ñëpp ay dem di jëmbat garab donc boo leen defee loolu dinaa ci yokk leneen agence bi yëpp au lieu dem euh, beneen at ñuy dem feneen fii li ñuy yokk liggéey ensemble